asalaamualeykum maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di di nuyu suñu kilifa yu baax yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal di nuyu aussi suñu sang yu baax yi euh, di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi wala nga nekk bitim réew wala nga nekk foo mën a nekk ci àdduna rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci direct bi yépp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la jox sa worma ak sa wàccuwaay eh, di nag tàmbali li nga xamante nii moo ma fi tax a toog tey Euh, tout d'abord nag may ñaan rekk képp koo xamante ni yaa ngi ci direct bi euh, commentaire yi nga xam ne yéen a ngi koy bind ah jàpp leen ne wax dëgg yàlla duma ko mën a liir duma ko mën a liir bay tontu ci li ngeen di bind ci suuf euh, li ma tax a jóg rekk tax ma ñëw dinaa ko def ci kàttanu yàlla euh, wax tamit li nga xamante nii moo nekk ci suma dënn euh, wax tamit li nga xamante nii itam booba ba léegi ñu ngi koy wax jëmale ko ci man euh, di sant yàlla nag bu baax bi mu ñu mayee ñu nekk ay ndaw doon ay senegale doon ay jullit rax ci dolli doon ay murit di ndaw yoo xamante ni tamit ñu bëgg li leen yàlla teg lañu di ndaw yoo xamante ni itam ñu ngi jox wor worma képp koo xamante ni kilifa nga ci ñun eh, di ñaanal ñépp di santaat bu baax a baax ci li xew ma ci am nag ak cant goo xam ne am na tàmbali waaye amut yam ndax suñu boroom ci boppam euh, bis bu namee dara ci jaamam nu ko neex la koy doxale te yow moomu doo ci mën dara moo tax ñun ñi di ay ndaw suñu jékki-jékkee ba dara dal ñu walla bu ñu jékkee ba dara yegsi ci ñun ak lu mu métti métti métti am nañu yaqiin guñ ko mën a téye lu mu neex neex it am nañ yaqiin guñ ko mën a téye ba duñu ci sonn loolu moo tax ñuy santaat yàlla bu baax ci jagleel boobu noonu di di nag am ndëgër laay lool ci li nga xamante ni suñu boroom teg nañu ko ñu koy ndamoon ku ne nag xam na ni réew mi ñu nekk di Sénégal wax yu mel nii daf fi di yàgg di am daf di yàgg di am euh, ñun nag ay artistes lañu te bañuñu ñuy wax ci ñun li nga xamante ni itam moo fi indi wax ju bari ji fan yi yépp ngeen gis ci réseaux sociaux yi ku ne di wax ku ne di bind am ñoo xamante nii sax ndeysaan dañuy dañuy dañuy commentaire walla boog di décortiquer di wax nit ki loo xamante nii nit kiñ koy waxal sax moom yëgul ne loolu noonu yàlla def na ko ci jëmmam mu nekk loo xamante nii itam et des fois ñun mënuñu ko mënuñu cee ñàkk wax ndax nag c'est domage que réew mi ñu nekk des fois ñu yëkkati dara teg ko ci ndoddu nit wala ñuy waxal nit wala ñuy wax ci nit wala ñuy wax lu leen neex te kenn du ci mën dara ndax nag ña koy def ah, dañuy toog ci seeni ruq di def la ñu bëgg a def te amul kenn koo xam ni mën nga leen koo tere kon ñun bu fekkee ne dañuy wax ci ñun ah la ñuy wax ci ñun it ñun it am nañu ay jumtukaay yoo xam ne itam war na noo wax ak suñuy askan ah li nga xam ne nag moom la ñuy wax ci man depuis boobu ba léegi li nga xam ne moom lañuy wax boobu ba léegi ci man ma di ko dégg fu ne jékki-jékki rekk dégg ko gis ko ñu bind ko ci réseaux sociaux yi ku ci nekk jamono ji di ci wax di ci tàbbal say wax di wax lu la neex man nag ci sama wàllu bopp dama ni doomu aadama day wax dëgg yàlla walla man ci sama wàllu bopp man de su ma demoon ba war a wax ci dara ma am lu ma war a wax ci dara mu nekk lu ñépp war a xam duma wax rekk yam ci damay wax ba pare wane li tax ma wax lii lii moo ko waral kon dama jàpp ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy bind di wax dañoo war a yeewi askan bi ndax ñoom ña am ay information di wax am ay seeni support walla boog seeni façon jumtukaay yoo xam ni mën nañoo xam lu ne ñooñu nañu def ba xam lu ni mel war nañoo mën a def ba yeewi ci askan bi wane ay preuve yu leer nañ ni gaa yi wax ji lii la man dey bu doon man loolu laay def waaye nag xëy na du man kon nag ñi nga xamante nii loolu lañuy def man de loolu laa leen doon laayu biir ñu def loolu su ko defee buñ ko wanee askan bi ba askan bi gis ko xam ni ah lii la bu boobaa askan bi ci boppam ñoom ñooy juger li am ndax dëgg la wala du dëgg ndax lii la wala du loolu ndax yow mi am wax dëgg yàlla doole ak kàttan ba mën a xam lépp war ngaa mën a indi preuve yu leer nañ ba ñépp gis ko daal di kontaan xam ni lii la loolu nag képp koo xam ne bind nga walla loolu boo mënee def loolu itam baax na pour nga gindi askan wi boo ko mënul tamit ba mënoo ko xam ne mënoo ko tam garaawul nga xam ne mënoo ko waaye boo boo toogee fi nga toog bind li nga bind wax li nga wax dara waralu ko lu dul diw moo wax lii walla dama dégg ci diw wala diw de moo wax lee ah, dama foog ak yaakaar naa wax dëgg yàlla nit waru ci basé wu kese ndax man tey su ma sañoon ñu wundil ma loo xamante nii nit ñi yépp dañ koy xool xam ne dëgg gi lii la bu boobaa ku nekk am nga sa jugement bopp nga ne lii kat noonu la ah kon lii laa war a def lii laa war a wax wala lii laa war a wax waaye bu loolu amul ah nag daa war a am bu loolu amul maandute dafa war a am ñàkk a bañ a tooñ it dafa war a am ndax boo fekkee ni mën ngaa wax ci nit nga tëdd guddi yeew xam ne lii may wax nii wax dëgg yàlla awma ci lenn lu ma leer lu dul dama dégg benn waaye wax ko rek wala benn femme wax ko rek ma wax ko wala dañ ma ko wax loo ah man de du ma defee waaye nag ku nekk ak ni ngay defee kon nag looloo tax may invité waat sama mbokku jeunes yi nga xamante nii ah dañoo xot joto jaar fu mel noonu ñu bàyyi xel ci loolu ndax nag dafa am ñett yoo xam ne dafa am man su ma tooñee yàlla. sama diggante la ak yàlla su ma ko jéggaloo mën na maa jéggal waaye nit su tooñee moroomu doomu aadamaam moroomu nitam moroomu nitam kooku su ko su ko jéggalul ah yoonu suñ boroom nekku ci de te nit itam boo tooñee buur buur def li ko war ci yow kon nañuy moytu ñetti yooyu di tooñ buur wala ñuy tooñ suñu bopp walla suñu moroom wala ñuy tooñ buur loolu bëggoon naa sànni ko ci te itam loolu jàpp naa ne mooy li nga xam ni ñi nga xam ne ñooy bind war nañoo mën a am yenn yu leer nàññi ci loolu pour mën a wax léegi nag li nga xamante nii tey moo war a gën a tax sax may wax ci lii mooy ñàkk information ak ñàkk xam gi waral nit ñi di ñëw di jaawale man ki ma doon ak personnage yi may yi may joué ñàkk am lu leer weesuwul man ma tudd Xaadim Seen ngay jaawale li nga xamante ma nekk ñeeño ci film bi ñi nga xamante ni ñu ngi wax nee nañu dama dem ci kër di ñaan nit ñu bañ ma ko may ndax man ñeeño laa walla lene walla géwél laa walla tëgg laa man Xaadim Seen su ma nekkoon ñeeñoo damay fier lool santaat yàlla lool ci yàlla ñeeñoo bi ma def ma nekk ko su ma yàlla defoon géwél wala mu def ma tëgg damay damay fier ci loolu damay kontaan torop ci loolu ndax yàlla nag wax dëgg yàlla lu mu def ci jaamam lool la te ñooñu noonu comme maanaam li ci mel ni tëgg walla walla géwél wala ñeeño bi ñuy wax nii ne dem naa man ñu dàq ma ngir loolu man su ma yàlla tegoon loolu dama koy sant ndax ñu gore ngi noonu xeet bu gore la géwél xeet bu gore la géer xeet bu gore la tëgg xeet bu gore la ñeeño xeet bu gore la ana lan mooy ñeeñoo ana lan mooy tëgg ana mooy géwél ana lan mooy genre xeet yooyu noonu ba ñu jël ko di ko boole ci sama ay wax wala di ko boole ci sama ay mbir man su ma yàlla tegoon ñeeñoo wala mu teg ma géwél wala mu teg ma lu mu mënti doon dama ko koy sante waaye yàlla teguma loolu